ذاتها ومن عليه بكل ما له لا قد سأل الندى من أين فارتسب لشيخ أحمد مدسيس وهو يا لمن قل فيا إلهي تقبل منه حاجته ومن عليه بكل ما له لا سألت الندى من أين فاحتسب وفي شيخ أحمد فيه وكفى mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow mi siifur Baye Birame 2 Jaamal TV maa ngi lay ñaan ngay commentaire tey partagé tey j'aime bu fekk abonné go ngir yalla nga laal kolos notification bu nga bass abonné bi laal kolos notification bop xamné mo ñamay ñu xamna do xam moy bidenté go mooy biddantewoo boobu ñu ne wax yàgg bàyyi ñu né ñu né mo ñu so Maodo so bidenté won da fay ñaaw bidenté wo bo bidenté won da fay ñaaw bidenté bidenté wo mo biddantiwoo. bidenté wo bo bidenté boo da fay ñaaw bidenté wo lo yi bidenté Maodo bi dëkk woon bi dëkk woon dafay ñaaw bi dëkk woon man Maodo bi dëkk woon bi dëkk woon dafay ñaaw bi dëkk woon am na sëñ As bi dëntiwul sëñ As bi dëntiwul ndax dinaan jóg fajar yeete moom mu joxul mu xapp la ndox xam nga bu ko neexoon mën naa yeete te du taxaw ci jàmm ndax booba am na doom yu am soxla yoo xam ne mën nañee mën nañee ne ci daara ji taxawu waaye loolu moom du doy suñu as day yeete ba pare ñëw taxaw ci jàngu bi ba ñu ba xam ne ñu ngi jàng léeg-léeg bu demee jàkka ja ba ñëw wëraat ku ku def nekka su dul mu def na loo xam ne bëgguloo te foog ne kenn ñu wëla ko def rek waaw mu ne ma Modou <laughs> xam nga biir wala ku leen def da ngay fekk bëggal na la jàmm moo tax fi nii seen dëkk bi dañ coo daara ji tegu ko mii de waaw. jeex na waaw. na. keroog boo gisee askanam yi di dox nga xam ne ci moom lañ yaroo ci xam-xam. jeex na gis nga biddanti baaxul. moo tax mu ne ko Maodo boo biddanti woon dafay ñaaw biddanti woo Siraaj Malik biddanti woo muy gaas waaw ñu ci gaa yi de laajoo ci dañ dem de dañ dem de damay bëgg def euh, li ñuy tuddee jumatu ihtiraat yi rek continuer sama fa ma tolloon manqué naa daawum xaay la waaw déglu de yow kay mi nga bëgg danga ko am tey bu sama yàq wala ma jël dégg nga jël moom kay dama lay noppal rek yow kay fexe rek yeete taxaw ci jàng yi ba nit ñi commencé jàng ndeysaan. Mhm. alhamdulilah rabbil alamin ah loolu de moom sëñ bi. waaye na sa xol sedd yow kay dafa am koo xam ne bëgg démb sama doomu ni yàlla te kokoto lañ daje Basiiru Mariama doomu Oustaz Ahmad ñoo koy gisee lool ma dem ca daal balaa laajte ñu ma dafa génn may leen bu ñëwee na ko fu ñu dajee maa moom deret dana tuur bi même biñ julee tusubaar tuuti rek ma tax ci pegg jumaa ji di am ku may rek. mu doxee ma gannaaw ñëw jox ma dina ma nga ne loo wax ma ne ko li ma waxoon kay ñaax na fi nekk yow ma dag maa dag maa xaw a niru euh, Kaab ibnu Zuhayr lam dafa salaay salaam mu tagg ko tagg yu neex ulbiitu anna rasulullahi awhadani wala ko yende rasulullahi maxmuula gis nga la ko ca daal mbubb lañ ko jox jërëjëf su ko defee loolu laa doon wax rek dafa am kenn ci dongoy bayaas yi dafa am bis muy muy togg ganaar te boobu nit ñaa ngi jàng am na ñu ko xam fii ñu bàyyi jarul may tudd turam eh. ah fiika yéen na nekk juróomi million te ñu fekkee ko muur loo tabaarakallah waa ji dafa dem di togg ganaar sëñ baa ngi dem jàkk ja moo ak gune ne ko bu sëñ bi ñëw nga ñëw yëgal ko mu ne nga def daje suñu ne bëri na diw sànq ku nekk ko wax ma sëñ fekk dafa ne toogal ma ci mbedd bi bu sëñ bi ñëw nga yëgal ma bu ma daw dem ci jàngu ku nekk dem sëñ bi ne ko xëyul seet di nga tudd laa trop bon waa jëm mu ñëw sëñ bi sëñ bi ne waaw mbaa mbaa toog ay boobu muy xub mu grand rek sëñ moom xam naa ne lu ñu jàkkaarloo nga xam ne jàkkaarloo naa yow lu ki dem alaaji kàbb daf koy nekk alaaji kàbb bi nekk màkk dàkk mu ne man de maa ngi sant sañ aas ndax ndax maa delloo joon ndig te waaye ma maay maay notti sa jàkkee mu ne sañ aas ku jàkkee moom yàq mu ne demoon naa ba jarang laa doon def boo boo bu soxlaa damay dagg sama deret ñëpp ne yàqu na dama daan dégg suñu fi ne jàkkee yi maa fay noonu kon jaar mu yàlla am solo la yéen yàlla fayal mag naa yaa ngi dégg bu baax biñ demee ba mu yàgg dañ doon dëpp di ñibbi ndeke am na benn yahud bu ca kaw daal di toog ba mu yàgg mu seen njool màkka mu ngi ñëw waaye njool màkka nag ak abu bakka seen niroo dafa tax xàmmeewul kan ci dafa leen woo rek dafa leen naa daa umoo woo na leen qaa ilan muy aji wax ne xat laa fekk na jëndukum seen cër ñoom ñëpp ñu génn xaamu ilayhi siraa fii silaahi ñoom ñëpp ñu génn seen ngànnaay pour ku ko bëgg a song ñu song ndax kii lañ doon xaar te jege seen waaw numéro bi da ngay def إن لهم قائد لنقد لا خجمه في na leen kaa ilan kaa ilan mbir moom muy aji wax xat laa fekk na ca seen muur salaamaaleykum xat laa fekk na ca seen cër xat laa fekk na ca ki ngeen doon xaar ay sina xaa mu ñu jóg ilayhi dem ci njool màkka sira hël min musriin ñu ne wéy gaaw fii si laay ànd ak seeni ngaay laay ñu ne ko maam alxaaji Malick gars yi biñ génnee fan lañ daje njool mu ne laa xuuxu bu leen wéy de laa xuuxu fii naqalatin zaat qawluhumu ala duqula laa taqa zar أساس الوطن لا قو ومدينة دجيرن هو جول مكة لا قو دجيرن جو ومدينة هو جول مكة فين دجيرن مو فيه نغلتين تكرر تادر مكة isaaka jamono jañ dajeeg moom xawluhum seen wax mooy lan mooy laa taqaafa bu leen ragal sarasir waqami hayu borom ak mbañeel xam leen ne yegsi ngeen fii leen yàkkamte lu ci topp mu ne islaalu sayyidina siddiqo arbaum yaa ngi may ñaanal ñetteel te daan naa wax ne bokk na ci yi may tere bu ma ñëwee ci gàmmu ñaan daan naa ko tere ndax betteel betteel lay bañ daan naa tere ku ku daanu andil ma sa doom ne ma bëgg bàyyi loolu des koy démboo ak ku daanu dal sama kaw loolu tam dama koy bañ dafa bari ñoo xam ne buñ daanoo jànkat bi la xoj di ko bës di jooy waaw waaw dafa bëri ñoo xam ne buñ daanoo ci kaw jànkat bi lañ jëm te jànkat ñi wut coono lii rek mooy coono mooy bàggante bi léegi su poos yi kii bu demee mën a ñaari fan noppal waaye waaye yuuxu rek dem bés jànkat bi di di jooy déedéet loolu jàngul moo tax ma ne ñaari yooyu maa ngi koy invité bu ma kenn ne ma yóbbul sama doom man man bu ko fi bàyyi ndax aw fu ko dugal bu ma kenn daanu jëm sama kaw bu kenn daalu jëm si si ma dama benn gàmmoo waa ji bu yuuxu rek sama kanam lay daal te xam lu mu yàggee ak sama kaw li jëm ma ma ne leen dee leen ngeen téyeel ma ko ñemewu ma ko waaw ku daanu képp entre sawam kenn xamul lan lay def te dogul yàlla rek wax ku daanu entre sawam lu la def dañ naan yàllaa ko dogal da doon tagg yonent bi ñu mës ko kenn mës ko إسلام سيدنا الصديق حركه إياه قل إنه من أبدل الأمم ah wéccee man ma sama sago de moo ma joxee du ma xam lu ma lay jox ñëwal wax ak ñi toog nii man ànd sama sago moo joxee mën naa koo jaxas ndax xaw ma xaalis moo tax islaamu sayyidina nee na ker gi Aboubacar di keral njool màkk ci lañ xamee kenn mooy Aboubacar ak kan mooy njool màkk bu taxutoon loolu duñ leen xam ndax dañoo yàgg ñoom ñaar dañuy nuyoo Aboubacar njool màkk ñaari at la ko magee ñoom nag judd lundi ci rabiul awal ci fukki ak ñaar Abubakar juddu mardi fukk ak ñett ci rabiul awal ñoom ñaar ñu bokk yaroondoo màkk niroo bokk lépp bëggante soppante neexoo ñaar ñooñu neexu ñee xat bi mu ne islaalu sayidina siddiqu xarrafahum iyaaw islaalu sayidina keral gi xam ne moom la Abubakar di keral njool màkka a siddiqu aboubacar la ci naw iyaahu njool mag qul waxal ne innahu naka aboubacar min afdali lumami mu ma bokk ci gën ci àndaale yi aboubacar a baax te yàgg te mbaax gi yàgg ah waaw jërëjëf loolu lañ bëggoon jox ko ak am lañ bëggoon mhm. jërëjëf jërëjëf barakallahu fiik sabaat bañ ko ba benn lekk yoon na gàmm gu mel ni kii sabaat xuma gàmm lool lool lool lool lool ba nga xam ne bañ ñib see lool mu ne mu ne mu ne ma mu ne ko fu ko bëggee kër yoon bi si suma dëkk yi ne ko

tey mooy leen yoon te nii lañ ko bëggee tax ngeen ko di xam bis boo xam ne nag bu amee ren balaa am ko muy déwén soo ca nekkee bis boobu da nga war a te nit lu mu nekk ci jamais fulla am sa njëriñ nit lu mu nekk ci jamais fulla rek dana sa am njëriñ man daal li may ñaan dama leen di ñaan rek yàlla parce que loo ñaan yàlla dama leen di ñaan yàlla loo ñaan yàlla bay daam laa leen boole bay daam mooy ci ci bara jëf te te li ma wax ni ku gëm man gëm naa li ma wax ku gëm man gëm na billaay wala Macky Sall mii mu ngi delloo séance mu te loo bay daam doon doon te yow yaa ma ko yoolu moom la ma wax tey te alaji daam mi si jiitoo ay bagage am topp man bagage la ko man daal maa ngi ñaan yàlla gàmm gi yal na ko yàlla saxal bu baax maa ngi ñaan yàlla gàmm gi lépp lu fi fi ñu feere yal na yàlla fayal lu ko rakat soo déedee yàlla mën naa fay li lu ko ëpp loolu wér ndax li tax soo dee peepam su doon si suuf ndox mi sa def yàlla sotti si ndox mi su ba ba ba la may la may bi kenn du ko maa ngi ñaan fekki boobu yàlla ko yàlla andi ci ah. sëñ ma di mii du waxantu yam nañ ko ne waaye du waxantu te ci fajar lañ nekk te waxtu waxtu nangu ñaan la te mag la borom bi jaalu te yàgg naag bàyyi daam xale bi tam dafa waxtaane lu am solo ci ngoon muy àqi way jur rafetal jëm ci ñaari way jur gis nga bàyyi daam mii muy wax ne mu ngi ci tànt bi am nañ ci yëqin mu ngi ci tànt te bàyyi kenn werantuwul ni mu bëggoon way juróom loolu kenn werantuwul ndax dañu wax ne bi mu demee ba bëgg maa ngi ñëw de maa ngi ci wamin samaani ay yaay maa ngi dañu wax ne bi mu demee ba bëgg a jàng nga xam ne booba dañ ne kër gi moo fi moo fi njëkk gàddu nga roj wuti xam-xam bëgg naa jàng waaye tàggoo gi jaaxal na ko mu ne mu bëgg a jàng yaayam yëg ko yokku bàyyi ko ah, Amadou ne nee naa dafa bëgg a jàng ma maam de ba ko jàmm moo taxaw ne maam daam bàyyi daam su bëggee génn jàng jàngi dana ma léemal léem boo xam ne kenn du ko jàpp noonu kenn koy def bayram di gor di léem di gor di ba léem bi yegg maam di ma ko jàpp ne loolu de am na wañeen woo xam ne yaayam moo ko xam ne dama koy jël def def ko ci njàngam bayram mu jël wañeenu doyul mu ne am na bàgg boo xam ne yëre yoo xam ne ci lañ war a sol na nawet bi yëpp mu jëlaat ko ni def naa ko njàngam bayram ndax njàng yi barke wu njàngam bayram barke na ndax nekk naa maam Aliou Fatou ca Ndar diir bu yàgg yàgg moom moo koy jàngal te kenn ko fi sa morom dëkk ma dégg ne loolu am na te man mu des maa leer ñu ne sëñ As bi nga xamee ne Oustaz Ahmad mu ngi dal xam-xam ci maam daam sëñ As ak sëñ Mor Mokhtar ñoo laaj bay daam ne ko ndax gannaaw baayam Oustaz gannaaw baayam dal xam-xam ci maam daam ñu ne ko yoo dee maam nekk na ba jëyee ko foo nekkoon ci ndar ba alifaat lañ koy wax xamu seen bàyyi la nekkoon na yow nekkoon naa yow ndar nga koy jàngal waaye xamu foo nekkoon ci ndar diir la fa nekk kii daa koy jox daf taxaw foo nekk ba daam leen fa fekkee na fa ma nekkoon du ni xam ab juma ab juma laa dëkkoon suñuy ju suñu julee gee ma wax kii kii garde juma yi ne ko mayoo mayee sa njàpp ci kaw solo mu tëj yóbbu te caabi nii la dëkkee woon ndar kon li mu doon wax ci fonk way jur yow fi nga bokk ñun ñëpp dañu fonk seen way jur kon waxtaanee nga lu jar waxtaane te ku fonk sa way jur da nga jëriñ Yeah. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh salaamaaleykum sang yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar damay laajte addiya nag ci sëriñ si lay njëkkee góor 1000 francs jigéen téeméer waaw ci ku bëgg yénent bi nag laa wax sallallahu alayhi wa sallam waajaa nga góor 1000 francs Moodu 1000 francs laa soxla de nañ ñëwal indi jox ma rek boo paree ma jox ذوي الإيمان مبانا بدر الدنيا أتاركا سعي أعذاب na sa ñaari loxo ci kaw ñu màggal ko jar na ko def aw ibaadi mu faana jaataari kam fi tahbi ahsana ñëw leen waaji naam أدرد جاتاركا في صعب أحزانا ولا المصور حب الدين والعظماء للكعبة نسي جل مولاي may ñu tuuti ñaar ndax mel daal defoon nañu gàmm dama bëgg góor jigéen ñi bu ñu am wujju waaye nag bu ñu yéexee tuuti góor ñi am ñeenti jabar لم يدعى ولم يدعى الخائف والظلم

كيف يقول يلا نجل امن واي كم صلى يلا فاي امين يا رب نفتي ورا يلا نفتي امين يا رب الحاج مالك ومن ثمانية الأيام جاب على تلك المزافات لم يتحم ولم ينم wa dagg na moom sayiduna muhammad ak abubakrin ak ñañu àndat tilkal masafaati yooyu la distance muy diggante makka ak medina ñi ngi ko dox juróom-ñetti fan xam nga loolu diggante Màkka ak Madina njool Màkka nee na mu ko dagg lu tolloo juróom-ñetti fan te yëgul benn coon wala benn lott boo xam ne am na ci diggante wala benn tàggat lu ci topp masa bi ismati rabbi aw ana wala naqar waaw mille francs nga jëloon ci man delloo ma ko bala ma la koy laajaat waaw loolu wolof la jërëjëf waaye am na nag loo loo laaj lu bari gisagu ma loolu moom dañ ci waxtaan da yow yaay waxtaan ndax yaa fa rek demoon nga sëq rek jox gëmm rek sëq nee na masa dox na dox na moom gélém gi bi ismati rabbi ci musal sama borom tabaraka wa taala ndax yoonu métti na lool bëri na ay gaar-gaar lool waaye gëlëm gi yàlla musal na ko ba àgg ba mu àgg gëlëm gan la mu ne xaddu la tudd yàlla musal na ko ba benn lor dabu ko benn jamar dabu ko dem na ci jàmm yegg ci jàmm loolu nag lu neex la départ ci jàmm dox ci biir jàmm a ari arrivé ci biir jàmm jàmm dafa neex yéen ñu ko yàlla defal départ ci jàmm dox ci jàmm arrivé ci jàmm ci diiru huit jours juróom-ñetti moom la maam alxaaji Maalik ne masa dox na bi ismati rabbi ci musal ak sama borom aw anaaka mooy xataa anaaka rek aw gi bi maanaam xataa la dem ba yësal la dal xubaa fa xubaa fa la gëlëm nga yës wàcci ñu ne ko maam alaaji Malick xanaa man nga yee wax bis baag heure baag kañ laag fan laag nan la mu ne indesti daal di fii xubbi mawlidihi gas mën na ujrob ilayha bi haza xayra mutakin nee na ci jamono yoor yoor la ak si madinatul munawwar jamono yoor la ak Quba jamono yoor la ak Quba ñu ne ko bim agsee ci ban heure la fu mu toll mu ne booba mu ngi tolloo fukki fan ak ñaar ci weeru juddee woon ndax mu ngi juddoon rabiul awwal moo tax mu ne fii hubbi mawlidihi ñu ne ko ci ban heure mu ne inda sidaadi taxa ci la dal xubaa aduuma bila dayrin du topp la daa bani ci giir ba ni am fa lañ wàcc ñu kawe lañ nag bépp ak kawe ci ku ñuy wax kul soob di doomu xëpp nee na jamono yooyu lañ fa wàcc mu mel ni bul fàtte ne bàyyi woon nañ Seydina Ali ca gannaaw mu doon fay bor yi ñoon màkk lu ko waa màkk bañ-bañ moom lañ doon dénk waaw ko bañ lañ doon dénk moo tax ba muy dem mu bàyyi Ali yi ca këram na ko fayal ma képp ku am dénkaane jox ko ko képp ko fu fi am dénkaane jox ko ko Ali yi des néegam tëdd fa waa màkk ñëw fekk fa Ali xale yi ne leen yoon màkka dem na ñu daal di commencé nag ni ñëw di jël si la nga xam ne mooy seen i dénkaane ba départ nag fan leen ali dabee fan leen ali dabee na foofa ca xubaa leen ali fekk هناك أدركه ليس الأسودي هلي مع الدعاف وبعد البدر لم يقم sëñ bi sëñ Madi maa ngi jégalu de kontaan na ndax téere bi rek la bëgg ñu fi nee na xunaaka foofa ca Xubaa adrakoo la jotee njool Màkka xal yu xal yu na Abi Taalib waaw mooy laysul usuli mooy gaynde gaynde yi xale yi bi muy ñëw mu ngi ànd ak way lompañ yi ndax gannaaw njool màkka ñetti fan la fa sax daal di topp seen kaw mu ngi leen jotee xubaa moo tax mu ne gannaaw ñetti fan yooyu moo waral xale yi fekk leen ca xubaa daal di toog ak ñoom ñenn ña mu haddisan bayda saadin سابو العلماء دار الخوب قبيبي بعض اللمة الأمة نيني أنت أبو بكر نيوان نيجا غير قبيبي بموجك سعد دي وقتان نيني دي كسرقل مي وقتان أكنيو مننا وإن عزبا قد قيل قد جميع وقال ما أنت إلا أصبع بدم yeah إله بعد yeah. مختار وبالزمانية إلى آيات وعلى تلك المصافات لم ينهى ولم ينهى يا أنا قربتي جل البدر تهلك وضاعت Oh.

you like a good afternoon. we are. ku ci gën a bëgg seen baakar ku ci gën a bëgg seen baakar Hallelujah يلا أعطنا به يلا أعطنا به يلا أعطنا به لا ربي لا لا إله إلا بالله إلا إلا يا ربي لا